tey est-ce que mën nañ xam lan moo ko waral. Euh, maa ngi lay sant ba écoute euh, convocation la buñ buñ ma démb le commissaire Mendy euh, demandant que ma ñëw wuy si commissaire Sankharé après ma laaj ko lan la qu'est-ce qui se passe mbaa jàmm mu ne ma dafa am ay yu nekk ci mbedd mi yoo xam ne sa photo daf ci nekk donc ma ne ko ah mu ne ma waaw donc da nga dañoo bëgg nga ñëw wuy suñu ma ne leen amul problème. maa ngi leen di maa ngi leen di déglu maa ngi xaar ngeen indil ma convocation bi. Euh, après ñu woowaat ma laaj ma suma adresse ma jox leen ko mais comme dañu ma convoqué incha allahu rabbi dinaa leen dem wuy ji leen pour xam exactement de quoi ça retourne. mais dañ doon gis ne état moom moo daan def ay publicité ay ay ay ci rajo yeeg télé yi bi yoon amul. Euh, ak ñi fi woote tamit euh, dem leen bindu ci tam dafa dafa dafa bëri pour pourquoi yow wala yow sa sa affiche yi loi da koy tere. Euh, ci li ma xam ci suma xam-xam ak li nga xam ne moom laa gis mooy ni nga constat bi nga def bu élection amaan wala ñuy bindu ji révision ci liste électorale yi dañu ci communiquer. Euh, mais bi yoon ñëpp remarqué nañu ne defuñu ko euh, ñun nag ni ñu ko daan defee ci situation bu nekk euh, gëm sa bopp du mouvement politique gëm sa bopp mouvement citoyen la et lépp lu yitteel askan wi dañ ciy dugal suñu loxo ni ñu ko defee ci geste barrière yi ni ñu ko defee ci leneen ak leneen ak leneen lépp lu yitteel askan wi dañu ciy dugal suñu loxo noonu it la ñu ko defee ci bii wax nit ñi ne leen dem leen bindu ji waxuñu kenn àndal ak parti sàngam wala àndal ak diw sàngam li ñu wax lu leer la dem leen bindu ji ngir bokk ci liy defar euh, Sénégal et je crois que euh, acte la boo xam ne euh, man sama bopp dama ciy félicité waa gëm sa bopp yépp ci initiative bu am solo boobu ni ñu ko defee di jël seen ay flyer di wër ci réew mi di wax nit ñi def leen geste barrière yi moytu leen nuyoo moytu leen saafonte et cetera cetera day leen takk seen masque euh, je crois que loolu mooy taxawaay teyit it loolu la ñuy xaar ci citoyen bu nekk euh, comme ni ko Ahmed di defee comme ni ko euh, Michel mun a defee comme Cheikh Anta mun koo def ku ne mun na taxaw moom it bokk ci li doxal askan wi et c'est ce qu'on a j'en profite vraiment pour masawu waa banlieue ci inondation yi parce que ku ne xam na ne tey jii la ñu fa waroon dem comme ni ñu ko daan defee saa su ne yóbbul leen ay moto pompe ak ay gasoil lu tollu ci cinq mille litres euh, euh, ngir taxawu leen euh, mais malheureusement comme convoqué nañ ñu dinañu dem wuy ji commissariat central ba xam lan la ñu ñuy doyee di profito rek di wax ne ñi nekk ak gëm sa bopp di ay sympathisants ak coalition bi yëpp nañu ànd ak daal dinañ dem wuy déglu leen Euh, bu ñu ca génnee également dina dinañu wax ak askan wi euh, pour ku nekk xam de quoi ça retourne. Mhm. d' accord kon euh, Bougane Gueye Dany kon ci kanam tuuti nañ ci dellu si waat nag ak. Ndeye Khady Diouf ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la gërëm bu baax a baax ah. waaw kay mi ngi noonu nag jolof jolof jolof ci kan nag alaaji kon xam nañ leen a yéexatu ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax. nag ci sponsoring bi waaw kay jolof ci kan moom ñi nag moom moom.